ñinkeen la karola si wàllu ndaw yi anin parti be balu la naadile ak suñ parti APRC naka lay dunde nin ala sontaate meela su si yàlla àndee du yàgga bawo ñin fo ñinkeel min jeten isiyooli yeesi bari in two three years time ibe si la carte fayola na feereel le landin niŋol ñanta kacala ñamin ndaw yi nga jàkkaar lool nii ñeena yi fukki at ñeneen ak ñetta waaye fu mu nekk nii yaakaar nañ ne si ñaari at ba si kanam tuuti ñoom yëpp dinañ am at boobu su ko defee am na beneen pexe boo xam ne tamit ñu ngi ko lal pour ndaw yi eh, kabirin naa lon ko man sa kundaate diila noo fo ninkee doola bu ñu waree ne nguur gi du mun a jox ndaw yi yëpp liggéey Eh, na new watota ka funding care register as a contract group GPPA Anton General's Chamber nye register la pour ninga contract ko soto na skill workers ka funyola pour sa do ko soto no dafa mel ne ndaw yi day nan yóbbu Attorney General's Chamber ñu binda foofu santuri mbootaay ban dalil ñu def loolu pour su fekkee ne am nañ liggéeyu contrat ndaw yi ñu jóg borom métier yi ak ndaw yi ñu jaxasoo def liggéey bi koom-koom ko bi na ñëw si ñoom e, naalon ko kombonot wartale a fondinke siyaata xam nañ ne kombonot dafa rëy te ndaw yi daf si sakkat bari meccitiyel min bijee nga wolle kafu ñoola naalon moomoo e ila dookuwo mun mineti waaye borom métier lañ dajale ñu xam ku nekk lan mooy sa xam-xam mbeo daniro dila his excellency la anala cabinet minister lu ikabni e funding ke jibe ika e contract ko dila bawo i e register talako contract group doli register ta kon ñu ngay ñaan président bi ak cabinet ministre sam ñu jàppale ñu su fekkee ne liggéey feeñ na ngeen xam ne suñ ndaw yi dañ binda comme yeneen contracteurs yi nu ngi yi kon si kaw su liggéey amee ngeen jàppale leen jox liggéey boobu eh, ni woo mota joo ni taata agriculture la su loolu weesoo suñ demee si faana mbéy mi Excellency ko back to the land away for Kabirin ay banko taa His Excellency dafa ne ne la ñu delluwaat si tool yi depuis si jamono bu mu jëlee réew mi loolu la commencé di njëkk a joytu si noppi ndaw yi. Dulalibe Kombono Jang niye maa ko yewol develop se Gambia fango daa noole dulaa doo be lamen jam fango le to i ka faa ye subuto subuta ni a dada o faro jiseele bi je ani koojuye ka ñaami kaŋ ni ye je pepoto wo faŋo se gambiyankoolu daañinin no maanoo la le comme que yaa war nañu delluwaat si tool am nañ béréb yoo xam ne si lamen fii fu ñoo wooyee subuto su fekkee ne jàppale ngeen ñu defaral ñu suñ faro yooyu bu soobee yàlla su fa ndaw yi duggee di dem béy ñooñu lu ñoo béy lu ñoo góob bu soobee yàlla yaakaar ne loolu sax mun naa dundal gambe ni tata madiana fonan dulado bije hansa en jise ka funtije kolo kolo ka funtije je fanan min ya faroke je ya do kuwa nyama o fonan se gambia balundi nole mi alonko awarata amna bere bunya oye sibuto foofu tamit ndox bi dafa baw lii di génn foofu tamit soo ñu jàppalee defaral la ñu foofu suñ fa liggéeyee luñ faa mun a génne mun naa doy waa Gambia ba nga xam ne lu ñoo dundaa mun nañ ko mun nañ ko faa génne. de his excellency daan la. ñu ngi maa koy ñu faroolu ay upgrade ñi. ñu ngi ñaan his excellency suñ faro yi nga gën a eggal seen mbir gën a kowal haɗama ɗigoye ñantalon neɓota e mum tole andi yikkata mum tole dom adama si jelɓen dana wara ham fo fa heko ak fayde ñindinnigol mbi wuluta 1994 kana nan woli ɓamirelo ko gambie aɓe diñarintende aɓe beteyarintende kabirin ndawyuma hamme sisa adduna jele rewmi silan juɗo moy 1994 daño fofne dega dega dega dega dëkk bi taaroo réew mi taaroo dañ foog ne loolu lu yàgg la déedéet lii si sa la xewee woto ñanta la tandilolal ko Gambia kun abe ñamin ani biya abe ñamin kon war na ñaa woon Gambia démba ak tey naka la mel ntolina feereel min landi wolom eh, na keɓa ɗo soto jang kamin fo ambassadeur Jackson Eh, alafta kan sembentuya ka ese composition ka ke schoolol tema minni be combo note pour ka tandila aprc la development ka bo 94 kananan nanan ka competition o le tema pour salon ko kunun gambia be nyamin anin bi abe nyamin afatatale am nañ koo xam bu ñoo jàppale di Jackson mini nii jëfam si biir réew mi la bëggoon a am na fexe yoo xam ne mu ko teg mooy competition di binda di binda ay competition seen diggante ñoom it ne si diggante school yu nga xam ne ñu ngi Kombo North fii ñu ngi see xëccoo di di yokk xam-xam. ñaata damandi min education dam wolɓe siilale no wokkuwo kacaño kan aɓe kela ñamin si kanam tuuti dinañ diiso ak education ñu seet yan fexe la ñoo teg o jaksin kilombe temomin to aye football tournament le lanna onda etinol tema ko mono dang mi ya lon ko o fanan be ma ko e la ka fondin kel ka funyola janni ka si carte fayola o batarra ni be keta kilinti jackson mi tamit am na beneen tournament boo xam ne mu ngi ñu ko fi defar xëccoo football boo xam ne ñun ndaw si diggante ndaw yi la nekk pour lii ñu mun a téye ndaw yi fii ba balaa ñoo mu am at boo xam ne dinañ si sànni karta ñu mun a xam lu ñu war a def Eh, ntemanta damir fola jang bao his excellency kabirin diam tayenu sukuta na sila ko wala fay silo mimbota yuna e king combo kata yuna jambanjeli silo e sukuta latir kunda alhamdulillah rabbil alamin ngamo ile announcement ke iko jaban silo ya do contract le sign with his excellency mbe tentula mbe jayila wola man de aw ñaan parce que wax naa yow suukuda am na loo ñu li nga ñaanoon te am na loo ñu defal mooy si wàllu yoon yi yoon yoo xam ne ñu ngi si kombo noot fii nii am na lee yoon boo xam ne sax ne joxe nga ko contrat pour ñu liggéeyal yoon boobu kon donc ñun amuñ dara luñ ñaan eh, a baraka baake i baa fula ñëwaatoo siita bara siita ñaawo ñaa mbe pa usman bojang ifango domalon aka makoy na political konole, ambassador